fati kacoori jamfa i mbañu kacoora seytaani o kiino baa attention mbokki Sénégal rawatina commune bu Ares bile association nak, at budget jot muy amal ay activité culturelle ma ne nam ko won daw, la ko dabalaate vendredi le 2 juin samedi le 3 juin 2023 Ngelbo Magamak, Ngelbo a wa ngel boo xam ne waa Sokone ñoo ko doon laaj ak dëkk wër Sokone ndax artiste bi kan et son groupe ou et son groupe les Guelwaars du ci siin ma le 2 juin le 3 juin 2023 si Sokone bile association nag xam ngeen ne si Walu wér yaram éducation waaye solidarité ak yenen action yo xamne ne mu koy def ci commune bu Sokone activité yi muy def na def ci gëna bëgg a am doole ngir jappalé askan wi jege askan wi mbokk yi le président ak ñi mu àndal di la loxo wa Sokone yëpp la population way ren ji nekk ñu am ay invité d'honneur de marque ay invité d'honneur de classe ay invité d'honneur yoo Masha'allah. D'ici allah. le premier magistrat de la commune de Sokon, ministre maire Abdoulatif Latif Koulibaly. si Bakari Bakary Sidi Ndiaye Nek fee Dakar ak monsieur Abdou Karim Sakho Dakar Racine Ndiaye italiano Moussé Ismaïla Kebe, Sadakar, Dakar Moussa Dieng sa Dakar monsieur Baba Thiam sa Mamor Sen, à Dakar Limamou Malik Senghor à Dakar lycée Bassirou Bob à Thiès monsieur Mbaye Mboub foofa sa Paris la France monsieur Alassane Bayo à Dakar monsieur Mamadou Moustapha Dieng à Dakar Aziz Ndiaye foofa sa Espagne monsieur Saliou Ning à Dakar monsieur Mamadou Moustapha Ning Sitafa à Dakar monsieur Dieng Diouf à Dakar Bokar Diallo di monsieur Mbow foofa sa Suisse monsieur Babacar Sarr di Mbaye sa Karang monsieur Baye Maysa Gueye foofa ca Italie monsieur Amadou Ndene Ndaw ca Louga monsieur Mbaye Diallo ca Belgique monsieur Lamine Fofana foofa sa Mbour monsieur Gorgui Baro ci Sokone monsieur Babacar Ñing ca Italie monsieur David John fii ci Sokone monsieur Mamadou Diouf di Tom ca Italie monsieur Omar Mbaye ca Gambia High School monsieur Mamadou Amadou Sarr ca Gambia monsieur Ibrahima Dem ca Niamey monsieur Mohamed Camara ca Dakar monsieur Ibrahima Sakho à Dakar monsieur Mao Mbodj à Dakar Moussé Babou Diouf à Sokoun Moussé Issatine à Dakar invité d'honneur encore Kinga nga xamné Mousse Omar Faye Segabo, Gabon Ibrahim Khan, Kane à Dakar Mané Mbokki mbokk baangi bés à vendredi samedi le 2 et le 3 juillet 2023 Fils de partenaire officiel ONG Femme Plus Hôtel Caïman SCD société de construction bâtiment Kerbaïnias Transit, Techno Médic groupe Matfis Saaw Iccar location ma ne mbokk yi bés baa ngi noonu bu ko kenn tardé bu jinne bëggee Dakar ku yëg daanu ustu njool rek alay jël wax di siin ma ne Sokone dina yëngu ñaari fan yi saf sàpp lay doon te na mel ni bangoor jaaye mbaam ma ne nopp ya du dem